jëfati Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati jërëjëfaati sëriñ Béthio Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou jërëjëfati asalaamaaleykum mbokk jullit yi ngeen waa àdduna maa ngi nuyu mbooleem mbokki murid yi mbokk taalibe yi bàyyuma kenn tiijaan xaadal laayeen ak képp ku may dégg di jiital sama kàddu di siyaare di nuyu suñu xalif général des Mourides muy Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di sant bu baax di nuyu it Serigne Cheikh Mbacké mu Serigne Saliou ak mbooleem njabootuk sëriñ Saliou gi leen di siyaare di santaat bu baax waaye di ndokkelit suñu xalif général des Mourides ci màggaluk sëriñ Touba gi ñu génn di ko ci ndokkale te di ko ci ñaanal ñu yàgg ko yàgg àndee mu yàgg ñoo jiite mu yàgg ànd ak moom di fekke màggalu sëriñ tuubaa gi di santaat bu baax di ko ci ndokkale di ndokkale mbooleem njabootu sëriñ Touba gi ñoo ngi ñaanal xalif général ak mbooleem njabootu gi yàgg fi lool te gën a wér mbokk taalibe yi daaru salaam matlabul fawzeni nuuru daare ni waa Touba kër sëriñ Touba mu soxna Batoor Saliou Thioune waa Xelkom soxna Adja Saliou Thioune man soxna Aida may santaat Sëriñ Béthio bu wér di leen ndokkale ci màggalug Sëriñ tuuba gi génn génn muy bésub 18 safar am ci ak cant gu rëy sama digganteek Sëriñ Béthio ngir ànd bii ñu àndee liggéey bi ma leen ci santaat bu wér di leen sant ci pas-pas bi ak yitte gi ak pas-pasu liggéey bi ci ngor gi ci sag gi ci ndam li ci àndandoo bi ci bennoo bi ci liggéey bi nga xamante ni sëriñ Béthio dénk nañ ko muy ànd liggéeyal ko muy liggéeyal sëriñ Saliou may santaat bu wér nag di leen jolal samay kàddu cant ci lépp ci rafetaay gi ci jàmm ji waaw barki sëriñ Saliou maa ngi sant bu wér ànd bi rafet na àndee nañu ko ak mbooleem daara yi nga xamante ni sëriñ Béthio boole na ko ñun ñu ànde ko ci màggalam gii muy 18 safar gii di màggalu sëriñ Touba gi waaw te lépp di sàkk ak ndam ku nekk def ci lu mën ak lu mu mënul defee ko noo xam ni fooxe na suñu njort ndax ndigal kat dañ ci am sëriñ Saliou moo ne sëñ Mbacke ne sa taalib yi nañu fonk màggalu sëriñ Touba gi nañu fonk gàmmu gi nañu fonk xasaayit yi ak 17 avril bi kon bu sëriñ bi dogalee ñu génn ci di santaat sëriñ Saliou bu wér wax dëgg yàlla lépp jaadu na ci man ma wan leen kat béggee naa leen te sant naa leen muy soxna Batoor ak mboolem Touba Kër Serigne Touba muy soxna Adja ak mboolem Xelkom waaye muy it Daaru Salaam Matlaboul ni nuuru daare ni muy mboolem daare yi nga xam ne it Serigne Béthio dénk na ma ko maa ngi sant jëwri nii ci biir réew mi ñu ne ak bitim réew maa ngi fekk kenn ku ne fa mu ne ak mbooloo mu mu àndal te Serigne Béthio sampal def la ngay jëwrinam te boole ñu ànd liggéey bi maa ngi lay fekk fa nga ne di la wan ni sant naa bég naa maa ngi sàkku sëriñ Béthio gën ñoo dimbali ci ndimbalam ak yërmandeem ba saa su ne nii ak taalibe war a doxee digganteem ak sëriñam mu dimbali ñu ba ñu sax ci nekk ci faw te jàmm ji yokk ndam yi yokk sag yi yokk te ñu yàgg koo fekkee te saa su ne doole ji yokku ngir liggéeyam bi dem ba faw ci barkeb sëriñ Béthio maa ngi sant ñépp waaye it di leen jot liit ngir ñu xam ni waajtaayu gàmmu gi kat dugg nañ ci fi mu toll nii te daanaka yegg si na maa ngi ciy woote fii ma woote nag maa ngi fi toll fii ci ngaabu di leen woo ci gàmmu gi danga xam ne gàmmu gi kat xam ngeen ni madinatu salaam la foofee la ko sëriñ Béthio daan defee foofee mu ko daan defee nag ak na mu ko daan defee woo naa leen ci bëgg ñépp taxaw tem ngir kat gàmmoom gii nga xam ne ndigal la ci ñun moom Serigne Saliou moo ñu ko digal jaarale ko ci sëñ Béthio ñu fexe ba góor góorlu ci te euh, màggal guddig nabi ñu gën gi mbindéef kon maa ngi leen ciy woowaat di leen gën a seeral sama cant ak sama mbég ci ànd gi ñu àndee màggal gi maa ngi santaat bu baax maa ngi siyaare euh, sëñ Mountakha Mbacké xalif général de Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di siyaare bu baax sëñ Cheikh Mbacké mu sëriñ Saliou ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gi di santaat Serigne Mbacke di ñaan mu yàgg fi loolu te gën